famille taxaw ñu mënote Pape Ndiaye di ko bëmax un journaliste menotté au Sénégal mm-hmm. te président Macky Sall taxawoon jàkkaarloog tous les Sénégalais ne leen mën na mën ngeen maa séntu ci lu ne mm-hmm. mais sauf tëj un journaliste mm-hmm. ci sama sama reñ il l'a fait avec Pape Alé mettre loolu sénégalais yi kilifa dina ñëpp wax ci. Mm. tey Pape Ndiaye la ak qui le tour. mais Mass da nga dugg fu important balaa ñoo jox Pa Assane parce que lundi dernier on était euh, foofoo ci cave ba Pape Ndiaye instant bi muy génnee ci oto bi dañ ko jël menotté ko. Mm-hmm. mënoote ko ba Pape Ndiaye mënul yëngatu yëngal yëngal li nga xamante ne moo di lox loxoom sa famille qui était là-bas dëgëroon nañ mais instant bi Pape wàccee ci oto bi kenn kenn que ça soit sa famille wala ñun ñi nga xamante ne xëy na ñoo di ay confrères consoeurs am yi nekkoon foofu mënatuñu woon téye suñu loxo mm-hmm. parce que il a été menotté comme un vulgaire détenu absolument wala un vulgaire bandit bu nga xamante ne un voyou mm-hmm. euh, ci ay conditions yu doy waar yu nga xamante ne jamono ji lundi moom la ñu gisee Pape Ndiaye et je que loolu yëkkati na xolu ku ne et may la ñu bàyyi la nga. voilà le euh, le fait que attends may avant may may jox Pape Assane ma wax Pape Pape Ndiaye lan lañ ko arrêté. oui parce que dañ ne diffusion de fausse nouvelle. Mm-hmm. fii la toog Pape yàgg na wax ci dossier euh, bu jëm ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr muy Sweet Beauté. Mm-hmm. am ci ay révélation gëstu ci nag ba xam li mu war a xam. mais un journaliste bu wax li mu war a wax. il ne révèle pas ses sources. Mm-hmm. dégg journaliste bu ne fii laa ko jëlee diw moo ma ko wax. mais ñu jël loolu tey jii. Euh, def ko prétexte yokk ci ay charge xam nga lu ñu euh, parce que Pape dañ ko dañ ko euh, accusé si si chef d'accusation la mhm. bu njëkk bi mooy diffusion de fausse nouvelle deuxième bi mooy provocation d'un attroupement xam man attroupement la Pape di di di di kii mhm. intimidation et représailles contre un membre de la justice mhm. outrage à un magistrat discours portant la discrédit sur un acte juridictionnel six ñu ne mise en danger de la vie d'autrui mais maanaam on a corsé le dossier de Pape Ndiaye. Mm-hmm. ah yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko instruction pour rek. pour mën ko pour mën ko làq jant bi et c'est injuste mm. en ce moment ci jamono jooju tey ji am beneen journaliste bu naan ba tërëf mm-hmm. mbëkk ay nit bokk ci feneen ñu may ko liberté provisoire pap ñu jël ko dugal ko ci kaso yi mais bu ñu waxee ni justice am na Sénégal xaw na doy waar mm. Pa Assane Seck mm-hmm. euh, ma jox la kàddu gi ma mbokk hmm, ci xew-xew bi fi am ak aussi liberté de la presse bi mm. jërëjëf Mass mm. euh, bon déjà damay damay damay masawu Pape ak famille am Euh, j'en aussi peut-être def benn euh, incursion bu ndaw ci ci déchet bi ñu yëg en cours de route sànq mm-hmm. ñu wax ñu ne maître Ousmane Seye dafa wàcc liggéey. ci ci malaise bu ko yóbbu yàlla na yàlla. jégal ko ay bàkkaaram def ko euh, xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci aljana yi gën a kawe parce que sunu sunu sunu xamee la woon voisin la. Mm-hmm. et puis euh, dëkkoon nañu fii. donc ak moom ensuite euh, man image bi am ci moom mooy bi sama jur wàcce liggéey mm-hmm. moom mu ñëw di di jàll si donc loolu aussi ak euh, mm-hmm. voilà donc vraiment yàlla na ko yàlla yërëm xaar ak aljina yi gën a mm-hmm. kawe alors <clears throat> par rapport à la situation actuelle bi concerne Pape Ndiaye j'aurais ne aimé gis médaillon Pape Ndiaye ci écran bi Walfadjri mmh. loolu moom loolu moom je pense que kilifa bi mën nañu ko may mmh. euh, nous on le fait à Fajaru sur deux a TV donc euh, je pense que toutes les chaines de télé mmh. dañu war a def médaillon bu ñu téyee journaliste dañu war a def médaillon parce que man li ma jaaxal dans tout cette histoire il est extrêmement rare nga dégg justice jàpp na nitu justice oui mmh, ne justice jàpp na nitu justice. ah di xanaa waa ji ñu ne dafa rey njabootam mar taal. Mhm. xanaa mhm. xanaa. mais def na. ñu mhm. téye ko bu yàggul quest a entendu maître El Hadj ñoom seen biir. ñu dajaloo xool qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à lui. te fa mu gën a oyofee ca moom lañ lañ ca demee. corporation. ñoom déggoon. on a vu maître Ciré Clédor di plaider pour moom. et pourtant. oui en principe ñaari opposant lañu. Oui. mais avocat avocat yi mbokkam. Mhm. ñoo ko magistrat ak juge benn corporation la boo xam ni lenn du leen féewale. mais dañoo am fulla mhm. dañoo am fayda. waaw dañoo am classe am personnalité. Mhm. xam seen bopp. ñu ngi ci yoon newuñ ci yoon ñoom xam nañ seen bopp. waaw lu ñu bëgg a def def ko. mais presse sénégalaise moo xamul boppam. Euh, en fait la la réalité elle est ainsi. Mhm. presse sénégalaise. Mhm. moo xamul boppam mhm. xamalu tax. parce que presse sénégalaise la ñuy utiliser. ci information bu concerné nitu presse sénégalaise. nitu hmm. avocat du nangu mukk nga utiliser ko contre avocat. wala magistrat duñ ko xalaatuñ ko. pour nga ñëw ne juge bi wéy sa waa ji du boo koy def di dugg parce que ñoom fa ñuy daje doo fa ne. Mhm. waaw lu tax presse bi mënuñu am loolu. Mhm. ce sont condition condition conditions yi wute. Mhm. Ablaye Wade dafa ñëw yóbbu seen avantage fenn fi. magistrat yi seen àdduna changé. Abdoulaye Wade def loolu macha allah. seen indemnité ya. oui ñu naan huit cent mille ak la ci des. le journaliste il est comment. dans une situation précaire. Mm La presse vi comment? Mal, très mal. Très mal, oui. Donc cette presse-là qui n'a pas économiquement de moyens, elle fait quoi? Mhm. Elle subit. nan la subiré mooy au-delà des taxes ak problème yi mu am ci imprimerie ak problème yi mu am ci publicité beeg. Mhm. toute la publicité de l'État fan lay dem RTS. oui. qui est une chaîne publique. Mhm. avec son budget. ci jamono dañ doon wax 7 milliards. tey RTS yàlla na yàlla yokk. ak professionnels yi fa ne. ñu ngi tabax immeuble daanaka plus de trente milliards. alhamdulilah. yàlla na yokk. amiin mais RTS lu mu jot ci publicité. Mm. yàlla na yokk. Mm. redevance yoon la pour la presse privée. pour que presse privée bi am na indépendance. Mm-hmm. mais sauf que am na acteur politique boo xam ni du mës bëgg. presse privée. Mm-hmm. am indépendance mu war a am. Abdou Diouf da cee def ba wa wàllam. di dem. Ablaye Wade di ñëw ñu am nguur bu bees bu président Macky Sall jiite. président Macky Sall amoon ci jamono par devers d'autres personnes mu ngi fàttaliku Njóogu Wàkk. Mhm. sunu baay bi un journal qui s'appelait Il est midi. Il xam na njëriñu presse. Mhm. xam bi mu ko xam moo tax <laughs> situation bi demee nii. moo di ne xam naa ne que média dina ma jàppale. Mhm. léegi média du jàppale keneen. c'est ça la réalité. Mhm. il faut pas média jàppale keneen. Mhm. parce que man dama ñëw pour toog bu média jàppale keneen day compliqué. Mhm. on met les conditions en 2012 2013 président bi ne baal naa leen seen ay boru fisc. ci jamono wàcc tension presse bi yëpp tàccu. 2STV ma ne ma ne euh, euh, sama waa ji Tunkara. attention bi ma koy wax na fi jàlloo ngi toog ma ne ko c'est bien attention. Mhm. parce que attention bi mooy li fii fi ni ñuy dund tey. dañu dem ba tey presse bi ngëpp. Mhm. nan lañ ko ngëbee. oui mais par l'entremise le relationship de ñoo xam ne ci presse bi lañ nekkoon. di mhm. suñu ay mag. ana suñu mag yi doon xeex contre Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade. Oh. ils sont tous quatre vingt dix neuf virgule nangam pour cent. autour du président côté autour du président. au côté du président Sall. Yoro Dia nuyu bu baax. yoro fii la tàmbale Walf Fadjri mm-hmm. un éminent journaliste mm-hmm. Mm-hmm. comme tant d'autres Alioune Fall qui était mon directeur au matin euh, Madiambal Diagne Madiambal Diagne euh, Abdou Latif Coulibaly El Hadji Amidou Kassé euh, Abou Abel Thiam Mamadou Thiam bare nañu macha allah. yàlla yàlla yokk leen. mais le mal mooy que vous ne pouvez pas vous autres ñooñu ñëpp nekk autour du président situation bi di demee nii c'est impossible. à moins que ngeen renier lépp lu ngeen doon dund ci jamono. Mm. pendant toute votre carrière li ngeen def yëpp ngeen sànn ko ci àll bi pour de la je dirais pas prébande mais du privilège. du privilège et c'est malheureux. Mm-hmm. loolu moo indi situation bi Pape Alé dund bi Pape Ndiaye di dund yàlla ñu ci mu muccal mais dana amaat bu ñu continuer bu keneen ak keneen war dund. Mm-hmm. mais est-ce que aussi amul beneen phénomène bu doolu ci xëy na ñi nga xamante ne dañoo nekk ci presse bi rangé wu au côté parce que nag gis nañ fi de la plume. yi nga xamante ne jamono ji quoi existé la. fii au Sénégal ci presse sénégalaise parce que gis nañ ñu nga xamante ne tey jii dañu am seeni ay journaux. Mhm. am seen i ay médias. Mhm. alors que l'on sait am na ñu nga xamante ne xëy na dañu nekk seen ginnaaw c'est pas des journalistes mais dañu ñëw juux ci métier bi xëy na. Mhm. pour def du journalisme joxe information alors que l'on na ah, que am na. leneen lu nga xamante ni moo nekk moo nekk ci ginnaaw est-ce que loolu yëpp aussi du conquérir à situation bi nga xamante ne tey ci lañ nekk. parce que da ngay gis ñuy wax naan Pape Ndiaye euh, euh, waruñu ko woon a jàpp mais. Mhm. alors je je vais je vais dire une chose euh, sa sa laaj bi c'est c'est évident que loolu daf ci am wàll. Mhm. mais celui qui vient investir son argent moom moo am moyen investir. oui ça peut n'importe qui mais kii liggéey liggéey bi moom mooy ki am personnalité wu liggéey ba talent mhm. léegi kooku yan condition la nangoo liggéey bi. la précarité fait que. man damay am journal war a fay dix personnes seen salaire. Mhm. wala quinze wala vingt. fan laay jëlee salaire bi. Mhm. kan moo jëndati journal. wax leen ma kii vend l'observateur avait le taux le plus fort cent mille exemplaires par jour. Mhm. laaj leen maintenant combien il tire. kenn tireetu fi lu ëpp quarante mille jëm cinquante mille exemplaires. kenn. ça veut dire énormément de choses. oui dire que concurrence su internet bi changé na donne bi. et pire. nit ñi gëmatuñu presse sénégalaise lu ci ëpp. oui parce que nit ñi dañ jàpp ni presse bi waxatul dëgg. dëgg la dañ naan benn fi wax wala ñaar. Mm-hmm. peut-être mm-hmm. léegi réalité boobu. Mm-hmm. fan la jógee mooy masse damay war a fay salaire. amul ma ko fayee. jaayuma sama journal te mooy sama métier te mënuma woyaan mënuma ñaan mënuma leb. qu'est-ce que je fais je vais voir Pathé. je vais voir Mass je vais voir Laye Laye je voir. yéen cinq entreprise ngeen yore. malheureusement entreprise publique ci état bi ngeen nekk. oui mais am ngeen ay budget de communication. Mm -hmm. je viens signer des conventions. nga jox ma 2 millions kii jox ma 2 millions kii jox ma 1 million 500 kii jox ma 3 millions kii <laughs> à la fin du mois je paie mes salaires man le directeur ma dese benn 1 million. Mhm. taqale. Mhm. ci diggante bi ci weer bi euh, je ne sais pas Ablaye Samb il vient ma dire mais à 18 heures mais booy il faut que nga nga kii moi j'ai quelque chose pour toi. boo melee ni Baye Assane. nga def waa ji à une. boo ko defee à la une encaissé 2 millions. xëy suba gérer kër gi neex. c'est ça le drame. Oui. mooy que la presse bi dundee aide. Mhm. warul dundee aide dafa war a dundee fonds. presse bi toog Walfadjri ne dama soxla cent millions dem banque ñu yox ko 500 millions. oui Walfadjri bu soxlaa 1 milliard bu demee banque tey ñu coince ko. Mhm. pourquoi. parce que système bi la c'est-à-dire l'État le pouvoir. Mhm. soo amee nguur bu honnête. conditions yi day bien. soo amee nguur bu malhonnête. Mhm. carte gi day lëbëjoo mu jur lan un Pape Ndiaye qui donne une information ma Maas wax na liñ ko accusé. Mhm. liñ ko accusé man dama jàpp ne sans prétention dañ dañ ko corsé. dañ ko diisal. pour mu diis yaa ngi wax menotté. am na yenn charge yoo xam ne buñ la ko tegee la loi impose li ma beneen kilifa doon expliqué bërkaat démb. Mhm. ma ne ko mais pourquoi ñu mënata ko. oui mu ne ma malheureusement c'est la loi. am na charge yoo xam bu ñu la ko tegee dañ tu tu as presque le niveau d'un criminel. mais jamono bi ñu koy mënatee euh, chef d'accusation yooyu tegaguñ ko ci kawam outrage à magistrat ak euh, beneen bi dañ ko tegagu ko mais on est boo xam ne Sénégal ku la ëpp doole jaay la ko dañ lay arrêté ci tali bi am nu ñu la arrêté am lu ñu waxeek yow mhm. nga wax ñu yóbbu la dem ne dafa ne nangam Ah sosal la te doo si mën tarfatal ay ni mhm. nga taxaw ŋang mais comme mais mu ne la waa ji ne boo ekkee dugal leen ko. doo wax. Mhm. ça drame na ma yàlla baal bi jóge ci colon bi takk si le black. mu dal mu jural ñu cay jamono cay jamono black mooy jàpp moroomu blackam yóbbul ko tubaab. te ñu kaa dund ba tey. Mhm. Félix Tshisekedi fulla bi mu am pour tontonteeg Macron. Mhm. malheureusement nous n'avons pas de chef d'état yu kaa def. parce que tey fi président tunisien bi nit ku bon kooku waxee waxi munaafiqunam boobu. Mhm. Guinée xam lu ñu def dem jugal avion yàpp seen ay nit yóbbu. ci fulla ñun Sénégal ñu toog naan ñu woy Sénégalais yi rassurez-vous. c'est c'est c'est c'est loolu mooy. Ah, ça fait tellement mal que. tu te poses la question tu a affaire à qui. Mm-hmm. parfois ngeen baal ma damaa toog ci plateau loo wax la jarul la mel naka sud maanaam am benn attitude bi. par frustration yenn saa yi dañuy am envie daggal. oui parfois on a envie daggal c'est-à-dire jaar fa bon. ndax ni gars yi di taxawee ak mm-hmm. ñun. te pourtant mënuloo ko. déedéet mënuloo ko ci war ma ci teggi nag lépp bu na wax dañ leen naan bàyyi suñu bàyyi suñu papa yi mais faalewul nu lu ñu bëgg a def la noo def ci lan toog yow li nga war a liggéey pendant dix ans onze ans douze ans ci magistère yaa ngi kaa con mm-hmm. ci ci éliminer diw na ngiw ñëw ñoo ci kii sama ennemi la quand vous passez un régime comme ça mm-hmm. doo liggéey te regardez le président Sall je donne un exemple mm-hmm. pendant président Macky Sall bi mu fi nekk ak léegi li mu fi def ci kilomètre Ablaye Wade ak Diouf defuñu ko. gis nga loolu. il a fait tellement de choses mais du feeñ mënoo di tabax di xeex. Mhm. parce que fi nga tabaxee di xeex lay yàqu day bëri. Mhm. absolument moo jur tey bu président defaree mille dix mille cent mille yàqu na. Mhm. te dix mille cent mille fu mu yàqoo sa mille du am valeur. dëgg la donc un un un Pape Ndiaye ba chuté foofu rek. nga baal ma un Pape Ndiaye. li ko dal du lenn lu dul xam nga ci kàddu nit mën naa juum. quand les gens woy pap nangam woy Pape Alé nangam. Mhm. dina am une part de vérité fenn foo xam da nga naan c'est vrai que il aurait dû ne pas tendre la perche nga ne attention am na lu mu doon wax wala bu ko waxee won nii Pape Ndiaye a parlé de d'un chiffre. oui il a donné il a parlé de dix neuf chiffres et cetera mhm. am na boroom xam-xam wala kilifa bu mag boo xam ne boo waxee ak moom dala naan en fait c'est pas ça ça s'est pas passé comme ça mais effectivement il a raison il n'a pas mais vous savez nangam nangam. Mhm. c'est le mais là. nguur bu la buggee coes ca mais ba lay dem mhm. ca conjonction de coordination ba mais où est donc ornicar <laughs> diggante virgule point virgule fan la lay coesee mhm. teg la fa te doo si mën dara moo tax à la limite di nga def le maximum de prudence possible mais ki lay wut mënoo mhm. ci moom dara lenn rek nga mën a def ki lay wut nga dem ba jëmmi jamono nga gàddu yi yat gàddu yi doj gàddu yi la ca des aujourd'hui li ma wax ni mën nañ toog daan ne waaye il est en train les gens oui. c'est comme ça qu'il faut absolument léegi lan moo fi nekk lan léegi Sénégal qu'est-ce qu'on doit faire on convoque Hadjibou Soumaré on convoque après fan la jëm mu yéex mu gaaw mhm. dina jur loo xam ni gënut donc aujourd'hui le cas de Pape Ndiaye si toute la presse s'organise dans un sens alhamdoulilah mm -hmm. sauf que c'est très difficile pour que presse bi organise dans ce sens Pourquoi? à cause la précarité <laughs> les conventions tey jii nii boo merenteek nguur bi mhm. convention société nangam ak nangam ak nangam dootoo si jot mhm. dootoo fay salaire mhm. nga tëj jamono bi ñu tool nag toute cette presse la dañu war a teg convention yi ñu tëj ñu taxaw dëgg la ñu régler problème man je me heure bi waroon nañoo fekk ñu naan suba mooy manifestation bi wala ginnaaw c'était ça mais pas ñu toog ba heure bii te organiser ñu dara lu dul rek toog naan ñu ngi xaar euh, euh, euh, yëf yi fan lay mujjee pour mën a xool concerté pour mën a décider pendant ce temps ñoom ñi ngi def avant mooy jox ki Salma man dama jaaxle ci Sénégal Sénégal bu ñu nee dëkk justice la man dafa may jaaxal trop parce que Salma mënuma comprendre tey jii réew moo xamante ne tey jii ana Hannibal Djim ndeysaan mu ci oui. Hmm? c'est extraordinaire ñu ngi nii di jàpp nañ benn membre Kopar Express dugal ci kaso bi. Mhm. ana Fadilou Keita. Mhm. ana Diop Taïf. c'est près d'une centaine ou hmm? plus. ana ana Diop Taïf. oui. Hmm? ana ñeneen ak ñeneen ana maire Amidia. mais xam nga lu mu xaw a jaaxal mooy corporation presse bi. Mhm. c'est une presse désunie su ma gisee dem bay déglu revue de presse wala benn titre bu journaux ñu jàpp tey jii Pape Ndiaye mu naan Pape Ndiaye bal de de balance balancé. au nangam balancé nga gis kuy revue de presse di revue de presse boo xamante ne en tôle balancé en tôle mhm. maanaam mooy suñu presse bi y a des hypocrites loolu loolu xam nga nu mu tudd ci tubaab waaw ça s'appelle de l'argotique l'argot mbedd non xam nga et quand la presse titre ci waxi mbedd mhm. c'est c'est c'est terrible la position de la libération mhm. donte xam nañ ki ko moom mais quand même am na ay titres yu am solo wala taxawaay bu am am solo ci euh, dossier Pape Ndiaye xam nga problème bi mooy nañu wax wax ji mu jeex gis nga fu mu toll nii waa ji nañu roñ roñ ñun ñëpp ba ñu jeex tàkk balaay 2024 parce que est pas normal que dans une démocratie tey jii ñu jàpp nit ñi di tëj. Mhm. mais ana Synpics ana ñeneen ak ñeneen. dem si taxawaay bi ñu war a taxaw nit ñi un de la presse amu fi maanaam tey jii dafa mën ni sax ñun ñi maanaam amuñu benn sécurité. Mhm. ci li ngay wax Pape Assane wax na ko léegi. ci un virgule ci un mais ci un nangam ñu jàppale dugal ci kaso bi nga am ndey am baay. Mhm. am njaboot. te gis nga euh, paasan mhm. presse bi dañu dese booloo. presse bi dañu dese booloo. on l'a fait à Pape Alé Niang benn manifestation la am Pape njaay bi ñu ko jàppee tey jii li ñu waroon def tey jii mooy une journée sans presse. <laughs> presse bi ñëpp euh, jug. mais non si une journée sans presse tey jii. ñëpp jug taxaw ne xoolal lii du fi amee. parce que tey mënuñu toog ba en 2023 hmm. ñu ñuy tere di wax ci yenn dossiers yi ku gis tey ji six chefs d'accusation yi ñu teg ci ndoddal Pape Pape Ndiaye xam ne c'est injuste xam ne justice amu ci hmm. dañ koo def pour mën ko tëral ci kaso bi six mois d'accord dañ ko def tey ji pour pour l'empêcher de parler hmm. dañ ko def tey ji pour wax presque bi eh yéen kat gis ngeen ni ñu def Pape Pape Ndiaye ana keneen ki ci topp ñun ñëpp tey ji mais danga nga nekk fu am solo da nekk fu am solo avant euh, Pathé di ñëw da nga am ñoo ñoo ñoo lim léegi paasan dossier Hannibal Djim mhm. juge Mamadou Seck mhm. dossier Papito Kara mhm. juge Mamadou Seck dossier Ousmane Diagne juge Mamadou Seck dossier Amidia juge Mamadou Seck tey jii ñu ngi naan Abdou ngay Gueye xurum euh, ma xam Diallo moo yoroon dossier wam mais nee na moom buñ ko daan auditionné juge du sekk day bàyyi bureau am ñëw ne ko mala àppo on a vu aujourd'hui ce même juge moo ñëw tey jël dossier Pape Ndiaye pour lan nee nañu soi-disant tàllal nuuna rabam tey jii c'est quoi le sujet c'est quoi le projet ak ni nga xamante ne noonu la ñuy doxalee doxalee justice bi waaw xam nga la y a y une boo xam ni euh, du du à la limite sax boo kaa wax nit ñi nit ñi lay sax dañ la wax mais loolu on le sait dafa am loo xam ni le mal est profond. on a parlé de la précarité de la presse on parlera de la précarité du vécu au Sénégal du quotidien au Sénégal le magistrat il fonctionne comment au Sénégal. Mm-hmm. ñii nekk ci justice ñuy fonctionner dañoo dépendre. fan la ñu dépendre dañoo am tutelle aux États-Unis les juges n'ont pas de tutelle. Mhm. organisation la ñu amee ni avocats yi amee corporation wu nekk seen biir di structuré wu di déggoo di régler seen ay problèmes. loolu moo doon deal bi tant que au Sénégal. Mhm. le conseil supérieur de la magistrature est présidé par ki jiite réew mi. Mhm. bu fi Macky Sall jógee le président Sall bu fi jógee. su keneen ñëwee bu dindu lool. nii rek lay demee loo mënti wax bu dindiwul article quatre-vingt nii rek lay demee. ak leneen ak leneen ak leneen. Mhm. Mm-hmm. tey ji nii a wax di xalaat naan. bu ma utiliser terme bi. day nekk danger. Mhm. su ma utiliser bi est-ce du loolu lañ si jublu parce que ñun ñëpp bu ñuy liggéey en fin de compte dañ lay yab. waaw mais waaw mais xool une chose. Mhm. mooy lanu xool xool li nu wax. lanu bëgg a wax daanu ko wax. Ah, dafa leer dama ne fi ma toog nii dama am envie daggal. fii de doo xaw dégguloo ma doo fi daggalee nag <laughs> xulil. maa ngi xool fii fii fii la doom. cest xam nga xam nga xam nga tey man man mi wax ak aw. <laughs> dama am ay xarit. yu nekk ci biir mm-hmm. seen biir nekk ci biir ñuy waxtaan. Mm-hmm. su ñoom dañuy reetaan. Mm-hmm. na ci bërkaat bërkaati démb euh, sama ay am di jàmm yu ma nekk nekkaloon. ñoom ñëpp daanaka waa APR la ñu war mën nag tiim ma. góor ak jigéen di rey rey ma ne teg benn nit ngeen doon groupe ku ne jël position mais am na kàddu dëgg boo xam ne bu jibee mbooloo moomu day néew loolu moo nekk nii jamono bi mhm. la presse sénégalaise ma wax ko fii presse bii nga xam ni jamono bi mu ngi mel ni ku ku ku ku wu bàyyi sëgg mhm. liiraam ni bis bu sottee xam leen ko gars yi billaay wallaay tallaay maa ngi ko wax fi yàlla ñu yàlla may fekkee tal lii nekk nii bu continuer mhm. yéen ñii jaay journal dootu leen génn bay jaay hmm. toute la presse laa la wax lii dem nii mhm. su continuer presse dootul am c'est-à-dire vous dootu leen génn convention dootu leen ko laal mhm. parce que simplement regardez le Gabon c'est l'un des pays les plus riches ci sous-sol en Afrique fan la Gabon terre fan la ñu jëm deux millions cinq cent matuñu sax trois millions habitants daanaka nag Qatar mel ci 3 millions d' habitants ak 2 millions 500 étrangers ou 600 700000 Qatar 600000 la ñu 700000. li ci des yëpp ay étrangers lañu ñu ne la 2 millions 3 millions. Gabon ñu ne la 2 millions 3 millions. Mm-hmm. te Gabon la fa nekk ci alal romb na maami Qatar. waaw Gabon toll fi mu toll parce que simplement il y a eu dans l'histoire mm-hmm. quelqu'un qui s' appelait El France ñëw nekk ci wetam. di récupérer ressources yi. Mm. dooleel ko mu toog armée française ne fa jàppale ko mu toog kenn du ko remplacer. Mm. <laughs> Sénégal nag bu nu muusut. Mm. yàlla ñu yàlla may fekk tal bu nu muusul laa wax. du ngee toog rek la mel ni nabax mm-hmm. bu toog di xool. bu nu muusul laa la wax. yàlla ñu ci yàlla musal. yàlla bu mu am. lu raw loolooy am. réew mi kenn neewul ndax tey du ma ne mukk président Macky Sall dafay bëgg a toog ba abadan ilaa déedéet. Mhm. waaye sañ naa wax ne am naa njort. bëri nga ci façon sax. bëri nga am naa njort boo xam ni. Mhm. man neexuma parce que nous avons des ressources. Mhm. barki démb kenn ci waa APR dañuy waxtaan mu ne ma waa mais du ñu jël pétrole beeg gaz bi di ko jox n'importe qui. ma ne ko yéen da ngeen kam moom ba kaa joxe kan mooy n'importe qui. da ngeen kam moom ba kaa joxe. est-ce que yéen a moom ba kaa joxe. tant que. parce que tey Sénégal dafa am benn affaire bu ñu dal on est entre le marteau et l'enclume oui. autour du Sénégal dafa bëri ay dëkk yu am jafe-jafe mm-hmm. bu ñu bëggee tiital dañ leen dañu naan ah jàmm ji fi ne gis ngeen dëkk bi bi li mm-hmm. nu wër mm-hmm. ñu ne ok après beneen wàll ba loolu mooy presque liy permettre benn nguur mu mel ni ku naan ok gars yi ragal nañ dëkk bi tàkk ok je vais je vais y aller c'est l'impression qui est donnée te loolu mooy jur fi ñuy dem ni yàlla ñu ci yàlla musal yàlla bu ñu dem si loolu yàlla yàlla yàlla sunu borom teg loxoom ci Sénégal. ba lépp luy lu bon loolu ñu njor di ko ragal bañ ñoo dal. mu bañ a dal ayca euh, déjà déjà seulement. Euh, mm-hmm. gis nga quand tu es dans tu es tu es libre quoi. Ah mm. libre. ba à moment donné saa à dire dootoo gisati euh, war naa dugg fii wala waruma dugg merci et il faut dire et admettre que Pape Ndiaye est est véritablement dans son élément ça dafa toll ci dugg ndëndam quoi mhm. et man je reste sûr persuadé que ne maanaam alors su amee pour def des affirmations il est assez intelligent assez outillé assez réseauté et informé mhm. comprendre nga ba war a mën a taxaw mu am pour def une affirmation quel que soit mhm. le degré d'importance bi ñuy jox affirmation yi mhm. man je suis je suis je suis zen je suis ok quoi léegi euh, euh, tout ñu ngi ñu ngi nekk di di euh, développer portant sur la liberté de la presse. Euh, en fait ñun dafa am yenn ci ay euh, euh, organisation yu nga mm-hmm. xamee ne que maanaam moom la ñu tënku. en tant que ay mm-hmm. journaliste de mm-hmm. profession. ñu ñu am pour def ay code gis nga. gis nga gis nga nit. liberté am mu ngi commencé ci kaw tey ku nekk renoncer une partie de sa liberté ñu am pour tënku ci dara. et alhamdulilah ba ñun ñëpp alors euh, focus nañ ci loolu. Mhm. maanaam ñu jox à la fois ci sartu ndeyu réew mi muy constitution. à la fois sa profession nga xalaat ne que lii moom mooy li nga la tegal. Mhm. mooy bi maanaam alors code de la presse ak yeneen ci ay euh, euh, maanaam base yoo xamee ne que moom la journaliste bi di liggéey. Mhm. si kaw loolu dafa am ay ay nit wala bokk ay institution yu nga xamee ñoom ñooy chargé wu pour sàmm bind yooyu nga xamee moom la ñu tënku. léegi ñun ñëpp ñu nangu ne bàyyi nañ lenn ci lu ñu war a suñu liberté. Mhm. focus ci loolu noonu jàpp ne que ñii bu ñu sukkandikoo ci seen ay euh, taxawaay dinañ nekk en liberté en sécurité. Mhm. sécurité liberté je pense c'est les deux termes hyper importants mhm. quoi. je me demande souvent tout à l'heure tudd nga Synpics. on a absolument rien contre parce que bu dee dëgg rek rek neex yàlla. man man man man xam naa li ma nekk xale ci milieu bi moo tax mais man xaw ma ña. benn ñaareel moom mooy donc gis naa communiqué boo xamee ne que waa CAP def nañ ko. mu nekk loo xamee ne que déjà rafetlu nañ ko. mais mënoon na mënoon na am beneen attitude wala beneen taxawaay boo xamee ne que c'était beaucoup plus résistant ni persistant. d'accord alors léegi je veux juste une chose. Mm-hmm. que ñi nga xamee ne que maanaam ñu ngi jiite structure wala institut bon structure association cadre kuréel yu demee noonu. Mm-hmm. de grâce qu'il soit un peu plus présent auprès du journaliste. man je le dis ah. parce que mhm. tout simplement encore moo xaat que xale laa de yàgguma ci milieu journalisme peut-être que su ma defee une cinq euh, ans voire mhm. quelque chose comme ça ci lay yem. Mhm. mais dama dama bëgg rek encore une fois seulement. que je me sens protégé. man en tant moo xaaral ma wax la xaaral wax la que je me sens protégé en tant que jeune reporter. oui que je me sens protégé en tant que jeune journaliste. oui seulement même 30 secondes rek je ma termine. <laughs> que je me sens protégé en tant que waxamee ne que maanaam professionnel nga. Mm. et di gis ay nit ñu nga xamee ne ils ont fait 30 ans 15 mm. ans 20 ans xam nga. la ci ci ci ci ci ci milieu bi. bu fekkee ne que mas maanaam wax sama xalaat par rapport ak. un Pape Ndiaye qui a fait presque quinze ans ci di di di dem procès bu nekk mu fekkee ko mais kooku est-ce que sañ nga ko taxaw ne que waroo wax ci lii wala waroo jox exemple par mm-hmm. rapport à ça ce sera lui clouer alors la la la bec comprendre nga ba may may wax mm-hmm. alors ñooñu nga xam ne ñoom ñoo yor eh, euh, kuréel yooyu mm-hmm. seulement de grâce nañu nañu gën a dëgëral seen seen seen mais beneen affaire ma ma daaneel peut-être ci ci grand bi ci wàllu liberté de la presse ba tey gis nga bi business business mhm. wala les businessmen bu ñu xësee ba envoyer donc cette presse sama mhm. gis-gis ci la ñu commencé di di di yàqule ñu mhm. parce que alors une maison de presse duñ ko teg ci ci ci base wuti xaalis mais base principe informé principe principe seulement principe parce que borom kër gi di Sidy Lamine Niasse ndem si yàlla si non ku ne mu ku ne xamoon na ne principe moom moo tax mu mu samp kër Babacar Touré ndem si yàlla si même chose donc il faut benn moment que le terme principe là mu nekk au cœur de de de nos léegi Salma Salma dafa am benn précision ma bëggoon euh, apporter pour euh, ñu ñuy seetaan mhm. parce que am na ñoo xamante ne gis nga Sénégal ngay gis ñu tëj doomu aadama am ñu ci kontaan ba ci ba ba tëj def ay ay publication a euh, intention de nuire. Mhm. mais aussi manipulation bu am. damay mhm. tudd turam ci ci ci ci réseaux sociaux Anita la xaw ma. Anita Diop Anita Diop ak certains membre de l'APR. baatu dëgg ci la bokk baatu dëgg ci la bokk. Hmm. ñu taxaw di wax ne Pape Ndiaye dafa demander pardon dafa doon jéggalu. au procureur au procureur c'est pas vrai c'est faux. du dëgg Pape Ndiaye du nit kuy il assume. Hmm. lépp lu mu wax ci plateau Pape Ndiaye il assume. Hmm. ba pare gis nga euh, ñooñu nañu gis nga ñooñu moomuñu réew mi ah. ñooñu nañ xam raison garder moomuñu réew mi. Mhm. mënuñu toog tey jii ñenn ñu ñu fal leen parce que ay saagakat lañu. ñenn ñu fan leen de des gens yoo xam amuñu benn valeur ñu fal leen. ndax dañ doon saaga saaga nit. Mhm. ñu teg leen ci ñu laqatu ci ay clavier. Mhm. di fenal journalist Pape Ndiaye n'a pas demandé pardon ci procureur ak ci kenn. waaye ci loolu information boobu dara du ci dëgg. désinformation lañ ci jublu xëy na mais ils ont dit Pape a demandé pardon au procureur te ki leen ko wax kenn la ci avocat Pape Ndiaye. Mhm. te ba ñu jotee euh, maître Moussa Sarr ak maître Abdinaar Ndiaye mi nga xamante ne ñoom ñoo yor dossier yi nee nañ c'est archi faux ñoom wax loolu. Mhm. déjà Pape jàkkaarlul woon ak procureur mais juge d'instruction la. déposé pour euh, euh, euh, diffamation déjà. Hmm. et avocat Pape yi nga xamante ni ñoom ñoom lañ tuumal ci wax jooju je pense que dinañ dox. Euh, jëm ci loolu léegi xam nga xam nga xam nga fi may daanale mooy. Hmm. parce que Pa Assane hmm. mais est-ce que on doit pas se poser une question. acharnement bi arrestation yi. le motif nan ma waral loolu. mais le xam nga xam xam nga tey bu ñu demee ba ñun ñu ne ñu ah ñu am tiit ak njàqare ne dossier Adji Sarr bi. Hmm? Mhm. ñemeetuma ci wax yii ndax bu ma ci waxee mën nañ maa def nangam buñ ma tëjul mën nañ ma booleeg ay nervi mhm. ñu dem ba tey ji munoo wax ne tey ji dañu accablé Ousmane Sonko pour mu bañ a bokk ci élection 2024 yi mhm. lu tax munoo ko wax ndax non si ah <laughs> parce que entre guillemets Pape nañu waxante dëgg rek ñi ñu jàpp ñëpp tey ji jàpp nañ ne dañuy dañuy dañuy def game pour Ousmane Sonko ñi ñu jàpp ñëpp booy xool autour tey jii ñi ñu mujjee arrestation yi ñu mujj jàpp yëpp tey jii c'est des proches wala jàpp nañ ne nangam man ni daf may woo xam nga ñun fi ñu toog nga baal ma rek. fi ñu toog dañu dem jàpp yàlla. <laughs> yàlla moom mënuñ koo jàpp nag. waaw waaw wax yaa dem jàpp ko nag. xam nga ne tey damay précision taay laay def rek. Mhm. parce que ñun ñi ñu toogee fii. Euh, xam nga pour lan mhm. on est par là pour Macky on n'est pour pour pour pour Sonko. oui on est là pour le peuple sénégalais. Mhm. fii ñu toog askanu Sénégal moo ñu fi teg. bu ñu fi tegee nag tey jii ñu jël ab dëgg làq ko toog di jaay hypocrisie wala ñu dem encaisser ay ay ay ñëw toog mais ana suñu ngor. Mhm. parce que tey jii Sénégal ku nekk nag yow man ku ne booy boo ngeen waaj. Mhm. parce que ku nekk mën naa xëy comme ni ko kii waxee wax ñu xool article bi ne la nangam ak nangam gis nga ci ci biir. Euh, Pathé. Pape Ndiaye. Hmm? diffusion de fausse nouvelle bi ko wax. mais. diffusion de fausses nouvelles ñu ciy téye ab journaliste. ab journaliste mais li nga wax du noonu mais nañ la woon la ah mais yow li nga wax kat vraiment nangam mm-hmm. mais ñu démentir mu jeex. beneen bi mooy xoolal mm-hmm. provocation à un attroupement. Pape Ndiaye ban attroupement la provoqué. xam naa beneen plateau non ban non ban attroupement est-ce que après da gis nit ñi di wax wala ñu bëgg ñëw buntu génn ci mbedd mi. ah benn bi mooy xoolal intimidation représailles contre un membre de la justice kan. la Pape attaqué toog na fii yëpp mais tuddul tur. Mhm. ma fu mu attaqué xoolal mais li ma gën a li ma gën a jaaxal nag. Mhm. mooy mise en danger de la vie d'autrui. qui est autrui. qui est autrui. Aïcha. Ah, ah, alors ma man je pense que euh, on est juste en face euh, de le trop d'ambition baaxul. Mhm. ambition bu ëpp. nit dafa doylu. boo. léeg-léeg masse nga xëy suba am deux cent francs mm-hmm. yor deux cent francs rek rek rek sa poche xulil deux cent rek nga war mm-hmm. Mm-hmm. nga xëy fekk engrais tàmmoon laaxu matin lu fonde ba pare sa poche am dara dëgg tàmm dem pâtisserie nga xëy deux cent fa nekk léegi yow lan nga war a def du nangu nangu waaw doo nangu ne looloo fa ne waaye ngay tëbaka dal jël sa téléphone bi xaaral ma woo diw ndekki dana paase <laughs> doo jot kenn doo yor dara te te doo bien yàq sa der doo naan ndox mhm. jël deux yi ànd ak xel bu dal ànd ak xel bu dal mhm. te deux yi bu dee paas bi diggante fii la ak fee nga maaj mhm. ut sa paquet mouchoir ak ndox sa benn kii mbuusu ndox bu fukki dërëm maaj maaj gàdd sa di dox di dem. Mhm. gëm yàlla lu jafe la nag. Mhm. c'est pas facile. loolu moo dal nguurab Sénégal nguur Sénégal moom la yàlla suturaal tey. Mhm. moo njëkk jël coupe d'Afrique bu ñu daw gannaaw 62 ans. moom la yàlla ne yaa ah, pétrole gaz feeñ na ci sa ay. yaay ndaanaan. moom la yàlla jox u di final suba. ak jàmm ak salaam bu ma juum le 11. incha allah samedi moom la yàlla ne yow yaa nar a battre le record. du foot africain pour nekk l'une des meilleures nations du monde de foot mhm. mooy teg les quatre compétitions ci treize mois nga dem finale mhm. mais sa jeunesse kontaan nañu est-ce que kon aayoo quelle contradiction munul billaahi oh. aayoo billaahi mhm. wallaahi tallaahi aayoo amoo xam-xam oh. dëgg la yàlla jox na la lépp pour que ton peuple soit heureux pour que nit ñi joyeux on a tout pour que ambiance bi bien hope am hope espoir yaakaar. Oui. Sénégal ne ah pétrole gaz zircon phosphate fer. Mm -hmm. tout ce que vous voulez lithium yëpp am na fi. téléphone bi li ma Clédor seen doon jàngal. oui ne ma paasan sa écran télé bu téléphone bu waddee lu tax bu tojee verre bi du tas. waaw parce que ca matière ba la. Mhm. Mhm. lithium. lithium da def waaye au delà de lithium zircon sax la ma wax. Mhm. nous sommes le troisième producteur mondial de zircon. de zircon fu mu dëkk ba xam si lan la ñu tedd. Hmm. zircon zircon fan la feeñ ñun. zircon bii jógee Sénégal. société française GCO. Hmm. gàddu ko di ko yóbbu di ko jaay européen yi. mais fan la feeñ ci sénégalais yi. léegi hmm. ñu ne la zircon. njëgu jamaa deuxième mais la yore maanaam moo gën a cher sax daanaka boo xefee oor demal jogo fii si kon di jóge léegi jogo fa si kon di jóge nit ñi pauvre ñàkk tumuranke di am problème ndox am problème mhm. non ñu def far benn raay boo xam ni day def nii direct ba port autonome gàddu yàpp jubal ngeen ne du ma daggal ah, ah déet bal daggal bal daggal. Ah. damaa daggal déet bal daggal déet après yow nga nga nga teg ci. nga teg ci moo ci des. non nga teg ci dama gis benn affaire. ñun ñëpp bëgg xorom waaye xorom si fu mu toll nii non du xorom daggal la wute na. xam a xorom sax beneen mais daggal daggal daggal mooy. daggal moo la. xulli la ay bët ba pare xool la ba nga xam ne daggal na ma la. waaw. moo la daggal. Mm. dama bëgg expliquer. dafa am lu ma metti daggal ci xel damaa gis footballeuru sénégalais yi U20 def nii bi ñu dugalee troisième but bi Lamine Camara donc Baye Demba def nii pourtant loolu ñu def noonu on me dira vous savez la diplomatie dafa am nu moo fonctionner mm-hmm. mais à un moment donné il faut être il faut être état damaa gis sama président Macky Sall mu def lu rafet mu tweeté félicité Lions yi rafet na. waaw nag moom non non rafet na. Mhm. mu tweeté mais ca fin ba feew wu phrase bi bi may liir mhm. dama ñëw ba ci fin bi ma ne j'espère qu'il va qu'il va dina dina taquiner son son père tunisien. Oui. j'espère après on me dira non la diplomatie ne fonctionne pas comme ça c'est un tweet c'est personnel. vous avez honoré l'Afrique noire après on dira ah attention mënu ko wax parce que yàlla a la diplomatie. diplomatie vous avez honoré l'Afrique. Mm. wax ak dégg. dama doon xaar ci feewu phrase bi président ñu bind mu bind vous avez honoré l' Afrique. Mm-hmm. loolu ku am dégg-dégg di nga xam ne am na fu moo waxee. dëgg la laalul diplomatie waaye wax na yooyu la ñuy xaar ci sunu ay njiit. Mm-hmm. mooy ce sens talentueux là de l' mais du jaay doole. Mm-hmm. jaay doole këkëx këx ngëx nga gëx la. moo la amut xam-xam. foo fekk kuy jaay doole. est-ce que du parti bi sax mooy faral di jaay doole mooy li wax kii jaay doole amul xam-xam. amul xam-xam yow yaa ma ëpp doole. benn àdduna bi mu xam ne yaa ma fu doole. Mhm. yor ngay arme yor ngay milliard yor nga lépp Pape Ndiaye mii boo ko felee mu dem. wallaay hmm. nga ñëw gàddu. nga ñàkk l' objectif c' est quoi il faut les humilier. Mmh, mais aussi ouais, faire ouais, peur ouais, peut-être aux journalistes qui man euh, loolu aussi jàngat naa ko ci maanaam journalistes yi tax woon foofu di ko xaar di ko soutenir di ko jàppale leur dire que yéen aussi boo leen moytandikuwul mën nañ leen traiter de la ah, même façon. waaw non c'est-à-dire c'est c'est c'est l'exemple par là hmm. mais mais damay wax benn affaire hmm? gis nga nit boo dee xeex te amoo doole da ngay wakkilu ci sunu borom. Hmm, ginnaaw ñun amuñuy arme amuñu dara mm-hmm. yoruñu xaalis yoruñu dara sanu làmmiñ bii lañu bëgg a tël tëj ko te kaka nar a tëj yàlla boo ko fekkee yow yéen wuñ la lu bonde yàlla boo fekkee tëj ba yàlla nga ne ci jàmm bi fa nga ne non dafa ma ne a nekk jàmm fa nga ne mm-hmm. waaye yàlla boo fekkee fu ñu tëj suñu làmmiñ mooy doo ko tëj léegi 30 secondes rek moom am lu mën a dolli nga may ma 30 secondes rek ah. mm. euh, xam nga paasan mm. gis nga tey jii doole bi ngay wax. Mm. kenn moo ko yor mm. sunu borom sunu borom waay. Mm-hmm. yàlla moo yor doole. gis nga li ñu def Pape Ndiaye tey def ko Pape Alé Niang tey jii mais bëri na tey jii ñu lay woo moom xam na ci dara say mbokk. Mm-hmm. ay ay ñu bokk ci ñoom. naan la mais booy. attention bul waxati ci dossier Adji Sarr non xoolal wuy ma je te dis bu ci waxati. Mhm. mais booy attention. Ah, mbaa mbaa jeg mbaa jegewoo gars yi. mbaa jegewoo gars yi non bu ci bul def nangam. Mhm. li li li Pa Assane wax ne da ngay am envie daggal. dëgg la des fois da ngay am envie génne. Ah moom la nit dof def. léeg-léeg léeg-léeg ma tëju léeg-léeg ma tëju sama néeg man kot ak yàlla xoolal ma may la léeg-léeg ma tëju man kot. waaw jël téléphone xool nit ne ko sap <laughs> sap sap nekkoon sax ñaan lu rëy <laughs> mais xam nga lu xam nga loolu xol xol bu jeex la sa néeg moom bu la neexee. moom ah, kenn du ma fekk kenn du la fekk damay téye rek naan ko sa. Ah, boo. <laughs> nge nge ne Pape xam Pape day réer mais xam nga lan la. gis nga gis nga Pape. maanaam maanaam askan wu askan wu dem ba askan wu dem ba ba ba dégoûté ko la. dëgg la jeunesse boo xamante ne amatuñu espoir. amatuñu yaakaar li Pape wax. Sénégal nekk réew moo xamante ne tey ji pétrole feeñ na fi nangam yow yàlla may na la ngay gagné nangam ay trophée mm. mais du yàlla may na la nga am loo liggéey ci réew mi quoi le problème mais nag benn affaire laa bëgg fàttali mooy ñiy juge ji di tëj les magistrats les procureurs nangam wallaahi app am na de app am na dina jeex euh, bis dina ñëw dootoo tëj barke rasulillah bis dina ñëw dootoo jugé billaahi wallaahi bis dina ñëw dootoo appo billaahi wallaahi bis dina ñëw dootoo wàcc nu nu mu naral kenn bis dina ñëw yow la ñuy tëj tëddal la tëral la di la ñaanal nañ xam ne juge yàlla na yéex suñu borom wa taala yii ñu def jël maanaam ab askan. jël ay gens donnés citoyens. Mhm. di leen jël di leen nëbb jant bi di leen privé de liberté. Mhm. loolu ñuy def nañ fàttaliku ne yu bàmmeel am na. wallaahi fi àdduna wallaahi day jeex. wallaahi te gis nga Pape xoolal nguur ak loo mën a wax. benn nguur mooy woy mooy nguuru suñu borom mhm. ki dafay jóge ci nii wala ci nii wallaahi keneen ki ñëw remplacer Macky dafay jóge wallaahi kon tey jii lépp loo xamante ne ñun presse ñu ngi ko def mhm. il faut que ñu jël suñu responsabilité bañ a toog di seetaan mhm. tey kan la Pape assan la ëllëg Maas la. maa la ëllëg man Birame Wacc la ëllëg nangam la. non yow daggal li ngay wax ni baa daggale. li ngay wax ni baa daggale. fii la xaaloo. <laughs> <laughs> li ma sama li ma sama benn waay li ma sama benn waay wax keroog ndaa wax na ma maas yaa ci topp ma ne ko ma ne ko laalal bant ma ne ko laalal bant jiwuti ngay laal non mais il faut que vous soyez prêts mais maanaam boo leen di wax li c'est comme si da ragal mais a une chose question de bravoure mais nekkal ci li nga war a nekk après yàlla mooy décider Salma dafa am loo xam ne moo fi ne mhm. il s'agit pas d'être prêt face à l'incrédule wala l'incongru oui loo xam ne du yoon man du ci pare. Mhm. xam ma la laay def. waaw mais lu bàyyi ma wax la bàyyi ma wax la déedéet amu fi. ah déedéet. laaj ma est laaj ma lu fi ne. oui. lu fi ne mooy lie fi am nga ne waa nangu naa ko. waaw toog na mhm. fi. am nga ne du fi am. du fi am xam nga lu fi ne. Mhm. li fi am te dul yoon du fi am. du am point ba pare taxaw xeex ko waaye sar. loolu man maa ngi ci loolu maa ngi bi. du fi am dafa am loo xam ni bu continuer mais dina jeexal ñëpp parce que ñaare ko mën nañ jël seen ay bagages génn réew mi. mbay baax wala wa ilaa jàpp ci dëkk bi lañu dëkk ñu jàpp ñëpp na teg léthargie bi am aussi c'est c'est grave euh, dafa am euh, tuuti rek laay intervenir dafa am loo xamante ni dañu koy xam mhm. euh, nit ñi ragalatuñu ndax jaay doole bu amee rek yàlla def ngëm-ngëm ci mhm. xolu nit ñi mhm. yàlla def fit ci xolu nit ñi. Hmm. yàlla mooy intervenir ci doomu aadama yi. dëgg la booy jaay doole ëpp nit ñi doole. Hmm. Hmm. yàlla tijji xol nit ñi. def ci ngëm-ngëm def ci fit. gis nga dañ ko nañ ko teg ci yoon. képp koo xam muy Macky Sall Abdoulaye Wade moo fi nekkoon. Abdou Diouf nekkoon fi Macky day dem keneen ñëw. mu neex ko mun a naqari. Euh, tey jii Pam Ndiaye bu àndoon ak ñoom. duñ ko jàpp ñi ànd ak ñoom ñu ngi mm. wax lu gën a pire loolu mm-hmm. te jàpp ñu leen gis nañ désinformation bi seen web boor la jóge bàyyi ku mën wax ci wii xoj nañu euh, ñu bàyyi Pa Assane mu tàggoo ak ñu jox kàddu li may li may waaw ay euh, sa dernier mot ban message nga am envie lancé surtout par rapport à ce dossier de Pape Ndiaye ma man dama am envie wax sama président de la République président Macky Sall euh, benn kàddu bu ndaw rek mm-hmm. président Sall en dafa am benn loi bu ñu doon wax loi Saad Saada Ndiaye. Hmm. nga waroon toog àggali sa magistère ñu wàcc la assemblée nga dem. Hmm. Sénégal yëpp ni du dëgg du yoon. nga def 2008 2009 2010 2011 2012 nga falu. yàlla wane boppam. Hmm. ni yàlla wane boppam noonu. même yàlla bee fi nekk. même nit yee fi nekk. même refus d'injustice bi moo fi nekk. Mhm. am na loo xam ne mënut a wëy. mën nañ la ñaan nag. Mhm. parce que bàyyi nga mag nga nijaay nga lépp nga. Mhm. ci war ma ne la président rectifier le tir. mais mën nañ la wax aussi ne la président. ñun duñu ay jaam. te loolu du fi am. ay ca fi am de plus jamais ça. dafa jeex dafa doy ayca. fi mu ne waxtu bi fa ñu li may rek mooy gërëm ñëpp sant ñëpp jox rendez-vous aussi euh, nit ñi euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan ci ci ci ci. Euh, Euh, ce soir. Mhm. Euh, ci live bi ma dalal euh, Cheikh Omar Diagne. incha allah ñu waxtaan ñu waxtaanee Sénégal ah. ñaan ci réew mi jàmb. daggal rek. noo man daggal moom wax dëgg yàlla fu mu toll nii ku ñuy wër moom wax dëgg yàlla. <laughs> waroo prêter la flanc. yàlla baax na lu ndaw boo ko waxee. ah la kaay yàlla baax na alors ñu lay jaajëfal mais di jaajëfal Pa Assane lii lañu ñu soxla. yii la ñu soxla instant bii nii di wax te yàlla rek tax di wax xëy na pour li nga xamante ne day jëmale kanam métier journalisme bi nga xamante ne nag ci la ñu ne ne ci parce que dañ koo bëgg waaye ne ci que dañ koo jàng te bëgg ci am ah, ah, ah, a baax waaye nekkal fi aussi ñi nga xamante ne ñoo di ñoo di askan bi mais doo wax parce que dafa am des intérêts wala des privilèges derrière yu nga xamante ni da koy défendre ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu takku taxaw rek def benn say jàppale